bismillaahi ma jóg man sant lillaahi sangub jigéen ñi ci dun yaa jaaratullaahi bismillaahi ma jóg man sant lillaahi sangub jigéen ñi ci dun yaa jaaratullaahi ngir ñépp ñépp ko gàddul cant war di ko way booleeg siyaare kaña nal jaaratullaahi budul ko nag sunu maam maryaama jaaratuna ko ñépp jaari jahim tey jaaratullahi budul ko nag rawdatu maam jaare fi poroxaan kon wóor ya daaxare dun dem jannatullahi nee leen ko alhamdulillahi alkarimi ndegam tuubaali man baalaxaayim am jaaratullahi نالن الحمد لله الكريم دقم توبى لمن بالغاي ام جارة الله حدس بني كدجيك تاريخ بطب كسرين توبا دو دمنار انجر مم جارة الله حدس بني كدجيك تاريخ بطب كسرين توبا دو دمنار انجر مم جارة الله ñeneentu téeméeri at ak junni mooy lañu wax loola di fanweeri at ngir Bamba lillaahi nee leen salaamun aleykum bu so jaaratuna yaa doon Mariama yow maam jaaratullaahi yaa doon Mariama yow maam jaaratullaahi Iisa ibnu Mariama ruuxullaahi kun laamu جبريل نيو فيكون جارة الله شيخ بامباني خادم لم يكن لمهم ولا يكون لممكن من الله ما لين يوك زيارة كيرم نفيو خل ياني رو ياني سنتر ياني لله يا جرسيار درام تي سكو خير hëddiya lillaahi ngir maam jaaratullaahi nangul nu suñ yéene ak suñ jëfi nangu gu wér te boole noog bamba fil jannaati billaahi bu nu yàqu bu nu yoqi bu nu yàqit la bamba defoon saadiq bu sax ci ndigal ngir jaaratullaahi umu xadimi lillaahi jaddatuna mam jaara bu soonu selmal jaaratu laab umul xadiimi rasuulillaahi jaddatuna mam jaara bu soonu selmal jaaratu laahi dem leen siyaare ji sunu mam jaara xudwatina royteef la fi Porokhane tey jaaratu laahi dem leen siyaare ji sunu mam jaara xudwatina رويتف لفي بارخان تجارة الله نجرمون وان كنو الدويلة دوي رسول تدوي رب الورا سيخ بمبجارة الله دويلة لدوي دوينا شيخ بمبان دوي أبدا تموجني خير خلق الله بالله دويلة لدوي دوينا شيخ بامبا وانو ابدا تمودن خير خلق الله بالله جا جف تجا جف نيا جف جف جو تخبانو ام وكنا مول مودي خون بول خلق بالله لا اله الا الله